mais bu fekkee da ngeen fee bëgg a dindi guy gi fi ne comme ni nga ko waxee sànq est ce que booloo bi gënul li ma bëgg a wax foofu mooy boo seetloo en exemple laa lay jox euh, ku ci mel ne Benno ak Tanor ak Benno Siggil Sénégal seen xajaloo moo leen xañ deuxième tour ñoom ñaar ndax li ñu am boo ko boolee moo ëpp li Macky Sall am foofu laay waxee en fait maanaam xajaloo bi ngeen nar a def au sein de Yewwi ak euh, ku mel ne euh, wàllu wallu Sénégal. d' abord da ngay takk benn affaire guy gi ak lu mu mën a am bokkut waxee waxewul loolu de. bokkul waxagul loolu. xaw ma nag yan pexe ngeen nar a def. du ay pexe man sama gëm-gëm boobu mën naa la wax waxoon naa la ci li ma la mën mhm. naa la man gëm naa ne Macky Sall du bokk. mais seulement ki ngeen am en face waxu waxu ci dina ko yedd xelam dina ko yedd. parce que démb soriwul du yàggul quoi. Mhm. li fi ne yëpp maintenant nit ñi ñooy wax moom waxagut mais dama jàpp de bonne foi et mu wékk ko ci confiance anthropologique en l'homme du bokk du bokk parce que xam na réew mi fi mu koy jëmee du bokk parce que am na ambition moom ailleurs du bokk parce que li ñu fi def bëgg na taarix bi des fi mhm. mais du bokk aussi parce que li fi ne woon mu gis ay ay nit ba ñàkk seen bakkan mais Macky Sall loo ko mën a waxal mooy ku yeewu la loo ko mën a waxal mooy jàng na. avec Ablaye Wade on bokk na sauf que dafa dafa dafa perdre. nga gis nga dafa am lu du taarix di jëriñ taarix mooy da nga koy fekkee dund ko. Mhm. wala boog ñu nettali la ko wala nga am yëg-yëg bi. moom yëpp ñett yëpp def na ko am na yëg-yëg bi fekkee na ko dund na ko ñettali kenn ko jaar soxlawu ko mais kooku la ñuy waxal tey jii moom par rapport li muy def maintenant tous ces actes nag lii mu la mooy dëgg disent que day bokk parce que loolu def mm-hmm. tous ces actes ñi ma àndal ak moom li ñuy posé yëpp looy jox mais man dama jàpp bu desul moom ak salawam kese bu réfléchir dina xam ne